Euh, xam ngeen ne président bu yàggul def na euh, maanaam réunion bu mag a mag a mag ca Ndakaaru pour seet nu nuy liggéeyee ba suñu koom-koom yëkkatikuwaat euh, kon événement bu mel nii aussi xëy na da ciy bokk ndax secteur informel boo koy seet ci Sénégal wala fii ci Touba am na fi solo lool lool lool lool kon nag am na solo aussi ñu fàttaliku ne président am na nu mu bëgg a secteur informel bi wax na ci 30 milliards bi yoo xam ne na leen ko jagleel ci ci commencement yamut fofu rek euh kon euh, lolu it aussi amna importance. ndax Sénégal euh boy sét li ëpp ci suñu compatriotes yi mbay lañuy dundé kon dañ ci sant Yalla bu baaxa baaxa baaxa baax amna ñu yaakar né euh li nga xamné dana génn ci gerte gi dana gëna yëkëti yëkkati euh, koom-koom bi ba nga xamné wi xeyna dinañ ci gis ngëneel pour économie bi yëpp.